kon ñu ngi nuyu ñëpp ñi fi teew e, di nuyu bu baax sëñ yàdd ak sa soxna sow di leen wax ni dañu fi ñëw ci turu monsieur le président de la république Macky Sall waroon nañu fi teel a ñëw lool sax lu ci tardé ci man mii la mais du ci président de la république dafa tukki woon man maa waroon am xel ñëw balaa mu may wax ni demal donc loolu ngeen xam ni du ci moom tardement bi yëpp ci man mii la ak sama décès donc di di leen wax ni li fi dal ci kër gi ci weer bu sell bi muy weeru koor yàlla def ci ñun chrétiens yi muy weer boo xam ni dañu ko jébal Mariama lu metti la mais li leen di wax nangeen xam ni metti na ci yéen naam mais metti na ci Sénégal yëpp képp ku ko dégg metti na ko doomi aadama bu ko dégg metti na ko mettit boobu nag nangeen xam ni président de la république am na ci wàll bu rëy koo xam ni bëggul kenn rafle bëggul kenn am tolof-tolof bu déggee loolu ci njabootam def koy metti man mii nekk moom xam naa ci dara bi mu ko déggee metti na ko torop donc di leen wax ni ñu ngi leen di jaale li nga xam ni dal na leen te mu metti lool ñaan suñu boroom ki fi jóge yàlla may ko àjjana parce que loolu lañu ñu am ñun ñëpp waaye gëm lañu metti na lool mais dañuy teg lépp ci loxo suñu boroom xam ni ndogal bu ñëwee rek ñëw na di leen waxati ni na ngeen ànd ak dal xam ni l'enquête bi lépp lu ci war incha allah dinañu ko def ba ki nga xam ni def na musiba boobu ñu teg ko loxo soxna si muuñal suñu borom moo la ko mayoon moo def mu dem tey du yomb muñ ga mais nag xam ñu diggante yaay ak doom lu metti metti la li la dal lu metti la waaye teg lépp ci loxoom sëñ yaat suñu borom moo la ko mayoon moo ko jël ni nga toogee nii ànd ak dal bu ci dindi dara suñu borom incha allah dina la may lu ko gën ñu ngi ñaan mu teerul ñu ko ci ajana bi gën a kawee ci ajana yi parce que ni mu demee kooku mënut ñàkk dem àjjana parce que loo xam ni teyoo ko toog jàpp sa jàmbur suñu borom def ci loolu gëm naa ni kooku yoonu àjjana mi ngi ci euh, donc di wax waa R100 waa Thiès ñu ngi jaale ñëpp président de la république mi ngi koy jaale Sénégal yëpp di wax ni ñëw bi tey metti na lool ba mais comme ni ma ko waxee ci njëlbeen gi rek wax ji mënu cee bare euh, dañ leen koy jaale rek li wax ni président de la république deux voilà donc euh, président moo yàdd moo lay jox lii de million yi. Euh, loolu lépp lu xew ci réew mi mu dee lu neex wala lu nakkari président am na habitude yónnee fa délégation yàlla def mu yónni ci yónni ñu fi tey di la massawu parce que loolu amul lu ñu ko mën a jëndee mais pour rek nga xam ni yéeg na li leen dal yéeg na li dal waa Hersent li dal waa Thiès euh, mi ngi leen koy jaale maa ngi leen di gërëm di leen sant nga xam loolee nag taxawu waa Thiès warmal waa Thiès ndax dañu wax ne lii am na loo xam ne cër bu la yàlla jox waruwaay la waaye du àkkukaay àkkukaay mu nga fexe ba fonk doomu aadama yi teral doomu aadama yi ak loo mën a jox doomu aadama yi te yëgoo leen amul njariñ te xam nañ ni président li tax mu teg la fi xam nañ ni yaa ngi koy doxal au niveau de Thiès kon yal na yàlla fay la mbokk yi wax nag ne dañuy santaat yàlla ci lii leen yàlla defal ndax yàlla dafa wàcce ñett dafa wàcce yéene ak bëgg-bëgg ak dogal nit ñi tànnal ñaar nit tànn yéene ak bëgg-bëgg yàlla ne kon dogal sama loxo la nekk ñoom nag bi yàlla dogalee nangu nañu ko ndax xam nañ ni lii yàlla dongo ko man keneen mënu ko ñu nangu ñu sant ci yàlla ku teew boobaak léegi ba mbir mi amee xam ne ñii saalituñu benn yoon ndax sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafa wax ne xàcc bi dalagul jarul woon xàcc bi dal ba pare jarul woon bu xàccee nga wonk mu téye loxoom nga rus bu xàcc bi dalee nga wonk muy saalit ñëpp net ko nga rus ñu xam ni yàlla leen ko joxoon ñu nangu loolee kon sant yàlla xale bii nga xam nag moo génn àdduna wax naa ko keroog ca dëj ba nee naa leen lu yàlla dogal la waaye xale bu jub xale bu tege ci yoon daayira rek la xam waaye man leen nag bu ñu ko jooy ndax weeru koor la dem mu dem ñu boom ko mu wëlbati ko yaakaaroo Cheikh Béthio Thioune Cheikh Béthio dem barsàq ñaari fan mu topp ko kon yaakaaru na kon ñoo ngi ñaan ci yàlla loolu yal nañ njiglaayam ci dara yonent bi mbokk yi na wax ni santaat nañu yàlla ci seen teewaay bii ndax dañ ne mbir lu mu diis diis boo yëgee ni yàgg say bokk ko bokk mu woyof ndax le président monsieur le président Macky Sall te le président de tous les sénégalais kon bu wëlbatikoo fa kalaat diis tiis dal ci kaw njaboot mu dikk bokkoog njaboot dañ ne mbir lu mu diis diis boo yëgee ni yàgg say bokk mu woyof ndax lii kat fa tabaarakala ci yëg la bokk ci ponkeel la bokk ci teral doom ak xam gëdday doomu aadama moo waral mu def lii ndax mënoon na rek bu jàppul woon ni tey jii. maa jur xale bi kon du doxale ni waaye jàpp na ni maa ko jur jàpp na ni tiis bi sama kaw la dal ma wëlbatiku ba ma noon a teew mooy teewal boppam waaye kon sa jëmm ji mu yónnee ñun jàpp nañ yéen ay président sànq la ma ko marem euh, wax ñi ma ki nga xam ni mooy ñëw sama papa la muy Augustin Tine monsieur le ministre mu ne ma ndax kooku sama wóolere baay la woon waaye taxawu sama baay taxawuñu ñun ñëpp kon bu dee ñëw ersa bu fekkoon maa koy mën a teeru si maa koy teeru si waaye teerul ma ko mu ne ma waaye ma di leen yëgal di ku teral doomu aadama ngoog ku fonk doomu ndax ñaar moo fi ne jaamu yàlla ak topp yàlla topp yàlla ci la la sant jaay jaamu yàlla ci jaamu yàlla waaye yaa ngi jaamu yàlla ci yàlla bi nga waxee danga ne ñun chrétien waaye chrétien ak musulman dama la ni loolee ci boppam du lu yàq penc lay doon ndax sëriñ sama guide spirituel sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy daf ne être trop juif trop même trop cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme qui nous mène toujours en mu ne donc soyez partisans de Dieu directement si vous voulez vivre en yàlla moom jaam ñi kenn moomu leen ku teral jaam ñi yàlla teral leen ku toroxal jaam ñi yàlla na la toroxal te kenn du ko faj kon fa tabarakallahu euh, monsieur le ministre ñoo ngi leen di sant nga ànd ko sa collaborateur bii fa tabarakallahu di Demba Diouf fa tabarakallahu moom itam léegi moom Marème seere ci yow moom la seere ci moom parce que bi ma wooyee dama ne maa ngi koy jot sa jox sa mu woo waaye xale bii nga doon jëflanteel muy roo xale bu baax a ngi xale bu joxu cër a ngi xale boo xam ne lépp luy développement ci koñ bi seen loxo ngi ci biir kon ñu ngi ñaan ci yàlla seen tànk yal na ko yàlla def tànku barke tànku yiw tànku leer xale bi lépp lu mu am ci yiw ak barke yi neel président yal na ci am ba doyal yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla suturaal li mu yéene ci réew mi yal ko yàlla motli ci dara yonent bi asalaamaaleykum wa rahmatullah Yes, yes.